àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai atum 2014 mbokk yi teewlu euh, télévision Futurs média bisimila ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ci gën a fés ñaar fukk ak ñaaru étudiant yu newoon ci loxoy yoon euh, gannaaw ba ñu leen jiiñee ne euh, dañu doon yàq lu askan wi moom ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mujj nañu leen bàyyi ndax lañu leen doon toppee amul lenn lu ko firndeel procès ba nag démb sax lañ ko fas yéene woon amal waaye gannaaw bi dañu tey jii syndicat bi ëmb ñiy jàngale ci daara yi kawe yi ñoom nag sàkku nañu ci recteur bu université mu def kéemtalaay kàttanam ngir nag ñu dàqal euh, jalgati bi ñu nemmeeku ci tëralin yi nga xamante ne mi ngi ci daara yi kawe yi euh, jëm nag euh, tey fa takk dere yegg taddu yoon waa SAES nag ne duñu dellu ci classe yi jàngale filek takk der yi jóge ci ca recteur bu université sax tey mi ngi doon janoo ak taskatu xibaar yi ñoom kilifay université yi fas nañu yéen amal waxtaan ci seen biir ngir indi ci fitna ga nga xamante ne ma nga ca UCAD daañu ci déglu Aliou kan ma ñu fa nekkal euh, kuréel gi nga xamante ni moom moo bànkaasoo ci nguurug Amérique di jàppale réew yi USAID euh, jàppale na réewum Sénégal dogu na nag ngir dimbale ko euh, ba ñu mën a am ceeb bu doy muy ceeb boo xamante ne nag fii lañ koy bayee ci biir réew mi naka noonu sax daañu amal ay exposition ak ay barab yoo xamante ne daañu fa jaay ceebu mbay mi jagleel ko ñu yëngu ci mbirum ceeb mi loolee ci weeru juin bi ñu dëkkmal lay doon liggéeykaay yi nga xamante ni lu ci bari nemmeeku nañ ni tëj nañu am ci yu am ay jafe-jafe bu ñu sukkandiku ci njëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllum xëy mi rapport bi ñu wane ci atum 2012 dafa wax ni lu toll ci ñaari téeméer ak fanweer ak ñett ci kay këru liggéeykaay tëj nañu am na ci nag yu bari yoo xamante ni ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe lan moo waral lu ni mel tontu li ci kanam tuuti lay doon ci biir xibaar yi mbokk yeeg xarit yi seetaan lii mooy ponk yi gën a fës yaatal geeg faram fàcc gi nes xiis lay doon Euh, jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias ñaar fukk ak ñaar étudiants yu université Cheikh Anta Diop yu Ndakaaru te newoon ci loxo yoon gannaaw bu ñu leen jiiñee ni dañu yàqlu askan wi moom euh, fële ci université mujj nañu leen bàyyi atte bi tey jii la woon ñoom ñoo ne nag lañu ñu seetlu mooy lañu leen doon toppee daal amul lenn loo xamante ni euh, da koo firnde ba tax nag ñu mujj leen a bàyyi waaye seen i avocat yi leen di layal ñoom yemuñu foofu ndax nee nañu dinañ def lépp continuer xeex bi jox la euh, ñaar fanweeri junni fanweeri junni yooyee nag mooy njëgub benn ordinateur bu ñu leen yàqal mu doon ab ndàmpaay euh, Fatimata Ba ñaar fukk ak ñaari étudiants yu université Cheikh Anta bu ndakaaru dinañ dellu ci amphithéâtre yi ñoom nag tribunal des flagrants délits bu ndakaaru daf leen a bàyyi ndax amul woon na ay firnde yu leer ci liñ leen di tuumaal mu doon ab àtte boo xamante ne avocat yi kontaan nañ ci lool. tribunal nee xale yi nga xam ne ñoom lañ téye woon muy ñaar ak ñaaru ñoom dara firndewul ne ñoom ñoom ñoo def yàq-yàq yu am université loolu aussi ku fekk woon débat bi xam nga ne am na ñoo xam ne jàpp ci mbedd mi te ay problème amoon na am na ñoo xam ne jàpp nañ saxtu sax ñu ay étudiants donc loolu yëpp ba ko tribunal gisee wax dëgg yàlla rendre na décision boo xam ne ñun ñëpp ñu koy rafetlu parce que étudiant jàng la xam étudiant la mu xam moom mooy ñu jox ko ay conditions yu mën a jànge ñu ngi ñaan yàlla mu nekk le début véritablement d'un apaisement de l'espace universitaire. xeex bi nag dina wéy ci yile avocat ndax kenn si ñoom di maître Souleymane Ndéné Ndiaye sàkku woon na ñu jox ndongo bu nekk fanweeri junni ndax seeni ordinateur yu ñu yàq. xam nga ñun am nañu droit ñu daaj ne ñun kat yàqal nañ ñu lii la yàq yàqal démb Souleymane na Ndiaye wax na ko génn nañu ay firnde mais tribunal bi nee na ñëpp ñi nga xam parce que bu leen fàttali état du Sénégal tamit dafa demandé woon ndàmpaay mu ne ndàmpaay yëpp dama koy teg ci suuf man jàpp naa ne yooyu yëpp dafay participer ci apaisement mais nag étudiants yi am nañu leen yàqal seeni i ordinateur te ordinateur dafa am solo ci étudiant moo tax dinañu xool suñu biir nan lañuy toogee ba saytu ko xool mbir moomu bu ñu ci waree def ay jéego tamit dinañ ko def mais lépp daal ci jàmm ak salaam. seeni moroom yi leen ñëwoon dooleel ci kontaan lool ci àtte bi avocat yi itam noonee ñuy sàkku ci étudiants yi ñu dellu ci daara ju kawe jooje jàng waaye itam fexe ba jàmm dellu si foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Euh, Fatimata Ba syndicat bi ëmb ñiy jàngale ci daara yi kaw yi sàkk nañu euh, ci recteur bu Ndakaaru mu def kéemtalaay kàttanam euh, ba ñu dakkal nag fitna gi nga xamante ni ñi ngi koy nemmeeku ci biir campus bi tey jii fa takk der ya yegg du yoon loolee jalgati la ci wàllu li ñu duppee franchise universitaire naka noonu kuréel gi mi ngi doon janoo ak taskatu xibaar yi démb ñu teewlu Seydi Ababacar Ndiaye secretaire général bu SAES e ci micro Fatima am fi xew fan yi si université yi maanaam xeex bi ak surtout takk der yi nga xam ne presque fii def nañ ko tey seen camp benn jàngalekat du jàngale fekk fekk ay policiers yi garde et amphithéâtre soxlawuñu policier di garde ko amphithéâtre pour jàngale duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg bien dañu ne tant que police ñu ngi fi ñoom duñ fi nag parce que wóoluwuñu police parce que nee nañu policiers yi te gis ngeen si image dañ nañ seen bunte tëj seen matériel door leen donc ñoom wóoluwuñu toog ak policiers yi fii. ñi nga xam def nañu ñetti at ba am lu ñuy wooyee seen lijaas bi ñu wooyee licence bugg a dem si at ah, bloc bi gën a mag bi maanaam euh, master bi ne ñooñu dañu war a dem fekk ne diggante boobu dañu si segg na dugal leen fa ñenn ñi ñoom ñi des na ñoom ñëpp war a dem ñu leen lu tax ñu ne parce que kenn tàngatu leen tàngatu leen maanaam pour ñu mun a génn si ñetti at yooyu dem liggéey ndax li ñeen jàngal maanaam kiiwul daal xarañul théorique dafa théorique torop ba du ñu mun dem. Seydi Ababacar Ndiaye secretaire général bu SAES euh, e recteur bu université sax euh, tey jii mu ngi doon janoo ak taskatu xibaar yi am na nag ay euh, kàddu yu fa tukkee muy nag mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa université bi noppi nañu ngir lal waxtaan ci seen biir ba mën xool daal ni ñuy indee saafara ci jafe-jafe yi dañuy daal di fekk ji université Aliou Kane moo ñu fa nekkal Aliou Kane maa ngi lay nuyu. lan lañ mën a jàpp ci ndaje moomee. waaw euh, fii li fi gën a sët ci xibaar moo di li waa SAES waxoon euh, ne euh, du ñu dugaat ci amphithéâtre yi tant que partenaires yi daal jóge wuñ fii ci université bi waaye nag recteur bu université bi muy Saliou Ndiaye li mu wax rek moo dina waa SAES suñu waxee loolu am nañ ci droit ndaxte ci communauté universitaire bi lañ bokk waaye nag wax na ne ay waxtaan la bëgg digganteem moom ak waa SAES te it wax na ne mbiru sécurité daal du loo xamante ne dañ koy waxtaanee nii ci mbedd mi daal mën nañ ko ci jàpp gannaaw loolu am na beneen xibaar aussi bi mu wax ci ci wàllu euh, master pour tous bi uni buy euh, étudiants yi di wax nee na daal ab loi ak ñetti décret ñoom ñoo wax lu leer ci loolu master pour tous mënut nekk étudiants yi même suñ ko bëggee moom recteur bi nee na loolu daal mënut ne loolu daal la wax daal ci gàttal soriwul sax ci loolu beneen mbir bu mu leeral mooy ci wàllu bourse yi naam ñu ngi wax ne bourse yi joxe nañ ko joxewuñ ko moom nee na daal joxe na bourse yi lu ëpp ci étudiants yi jox nañ seen bourse ñu ngi ko def seen gafal. Aliou euh, Kane laata ñuy ko laaj bu mujj bi euh, ndax euh, foofee ca université Abdal am na fa ndax gis nañ jamono yi yëpp étudiants yi ñu ngi doon yëngu-yëngal waaye tamit lu jëm ci mbirum yàq ya foofee ci lan lañ ci wax. waaw fii da nga sax ay yëngu-yëngu amu woon sax ndaxte lépp daal jaar na yoon étudiants yi ñu ngi dem seen yoon ñu ngi dugg. ci euh, ci amphithéâtre yi ñu ngi jàng fi daal amul benn jafe-jafe bu ne lu ñu mën a wax rek xanaa moo di ne takk der ñoom ñu ngi fi di xaar loolu nag lay étudiants yi di ñaawlu ba tey ji mbirum yàq ya ndax àdduna ci. mu ne. mbirum yàq yi yàq yi nga xamante ne dañ ne étudiants yi saccage yu ñu doon def foofee ci université ndax. àdduna ci moom recteur bi waaw loo loolu it ne wax na ci mais lim ci wax mu ne. loolu du étudiants yëpp ko def dafa ne daal ñenn rek ci étudiants yi ñooy ay samba booy la leen tuddee sax ñoom li ni mel. nangu na loolu waaye daal dafa ne ñu néew ci étudiants yi ñoo ko def li mu gëm daal moo di ne étudiants yi yëpp ñoom mënuñ def loolu ñu néew daal ñoo fi ne di ko def ci loolu sax la sukkandiku ba ne takk der su ñu duggee ci biir amphi yi wala ci biir campus bi di leen euh, di jàmmaalo yooyu la étudiant moom loolu da ciy ànd Aliou Kane ñu di ko jaajëfal bu baax li des ci xibaar yi euh, ci kanam euh, tuuti lay doon dina ko gën a farañ-fàcce ci ñu yeneen xibaar yi euh, ñu la élection secrétariat général bu parti socialiste démb lañu ko ñu ngi koy amal a jamono yi ki nga xamante ne nag moom mettre ay Tall Sall doon xëccoo bopp secrétariat général bi moom nag démb mi ngi doon janoo ak taskatu xibaar yi am na nag lu mu ñaawlu jàpp nag ne ab manquement la bu ñu ci nemmeeku bi ci mujj rek ci ci commission administrative ba nga xamante ne ma nga ca Golf Sud euh, foofe nag nee nañ lu toll ci ñaari téeméer ak ñaar euh, ci ay votants la ñu fa nemmeeku loolu nag mu nekk loo xamante ne dëppoowul ak li article 3 bi wax ndax nee na foofee lu toll ci euh, ñaari ñeenti téeméer ci ay membres ñoo fa nekk kon la fa wotee ëpp na du dëgg du yoon Aïssatou Tall Sall doon janu ak taskatu xibaar yi ñu teewlu ko ak Ibrahima Kane falub secrétaire général bu parti socialiste boo moyul dina am ay rëq-rëq ay fan des ngir ñu amal congrès bi ñu jàpp ci juróom benni fan ak juróom ñaari fan ci weeru juin maître ay Tall Sall ne nag day yëgal askan bi yenn rëq-rëq yoo xam ne nemmeeku na ko ci processus de vote bi nga xam ne tàmbali nañ ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mais ba léegi. dafa am ay coordination nga xam ne da ngay ñëw doo fa fekk liste ñuy wate day mel ni élection présidentielle ñëw rek nga dugg bureau de vote doo xam liste bi kan moo fay voté ak kan moo fa dul voté. te kooku defe naa mën na xajamal mbir mi beneen bi mooy dañoo gis ay responsable yoo xam ni ñoom secret de vote maanaam bañ gàcce bi dañ ko dañ ko ormaalul ah ku ormaalul bañ gàcce nag yaa ngi mel ni yow da ngay jal jalgati sartu parti bi parce que parti bi loolu la santaane loolu tam am na fu ñu ko nemmeeku. moom adversaire wu Ousmane Tanor Dieng xamle na itam ni ci benn coordination moom foofee dañ ko fa jox benn mandataire ne moo ko yebal te moo ne day xamul sax kookee ci loolu nag muy ñaax bureau politique bu parti socialiste ñu gën a crédibiliser processus de vote bi. bu ñu yaakaar ne ñoo ngi yuuxu rek pour ragal li war a ñu déedéet dañoo bëgg ñëpp xam lii lu mu demee te ma laaj bureau politique nga xam ne sama nawlee fa ne te ñoom li ñu waxoon mooy. seen xel ak seen xalaat yépp mooy na mbir bi jaar yoon comme lii nag gis naa ko ma leen di laaj ñu waxtaan ak coordination yi des nee leen artu leen ni lii nañ ko jaarale yoon falum secretaire général bu parti socialiste vote bi ñu ngi koy wéyal ci commission administrative yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Sénégal nekk itam collège électoral bu parti socialiste ci loolu nag kii nekk secretaire général bu parti socialiste war nañ koo xam benn fan ci weeru juin Ibrahima kan canta ngërëm ñeel na la kuréel gi bànkaasoo ci nguuruk Amérique di jàppale réew yi euh, taxaw na ngir gën a jàppale Sénégal rawatina ci ceeb bu doy euh, naka noon it dinañ amal ay exposition waaye tamit ay barab yoo xamante ne fii ci Ndakaaru lay doon euh, ñu mën fee jaay ceebub mbay mi fexe nag ba askan wi gën koo bëgg ci loolee la USAID taxaw loolu nag ci weeru juin bi ñu dëkkmal lay doon ñu jagleel kon site de vente yooyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci mbayum ceeb mi dañ ci ànd ak Bintu Lum a baax. waaye itam jaay ceebu mbay mi ci Ndakaaru ci diirub weer li ñu ci bëgg nag di fexe ba senegal dootul jéggaani ceeb. bu ñu nee dañuy wut pour am autosuffisance ñiy béy euh, soxla nañu surplus bi nga xam ne dañ koy jaay ñu mën ko jaay en fait caravane bi valeur pédagogique bi mu am mooy fexe ba woon senegale yi ne ceeb bi ñuy béy ci vallée bi wala duñ koy béy feneen ca anam beeg feneen. ceeb bu ñu mën a lekk la ci qualité am ak ci njëgam. campagne promotion ceebu mbay mi ñu war ko door ñetti gox lañu tànn ngir amal ko fa. ñetti site la pour le moment dakaar am na Guédiawaye am na euh, Pikine am na kooku tàmbali rek la dugg ci quartier yi won leen ceeb bi njëg bi ak qualité bi euh, mais xëj na bu ëllëgee. dinañ sax dem ba weesu ñetti sites yooyu ñaan nañ daal fexe ba Sénégal fu mën di nekk mën a accéder ci riz local bi. baykatu Sénégal yi am mbégte loolu ci bile campagne tey ñaax ñi ko sabab ñu yaatal ko ci biir réew mi yëpp. PCE moom ñu ngi àndoon ak ñoom at yii yëpp ñu ngi ànd ak ñoom depuis si tool yi ñoom ñoo indi variété aromatique bi muy euh, parfumé bi bu ñu tuddee parfumé. ñoom ñoo ñu defal euh, ay formation si naka ngay béyee ceeb naka ngay transformer ceeb bi naka ngay def ba ceeb bi am qualité ñoo ñu defaral ba ñu am ay logo yu rafet tey suñu nee dañuy def karawaan bu day ni ñun dañ koy kont dañ si kontaan di si bëgg. juin nara doon weeru ceebu mbay mi ci ndakaaru producteur ak baykat yi nara xamaleek askan wi ak xeetu ceeb yi am waaye itam wane qualité bi ci ndimbalu USAID. Euh, Bintu Loum ci ndimbalug USAID naka noonu it waaye jëfandiku yi rafetlu nañu taxawaayu USAID ci gën a fésal euh, ceebu mbay mii fii ci Sénégal gën koo xam xamleek askan wi euh, waaye nag du tee ñoom waaye jëfandiku yi ñu ngi sàkku leneen mooy nag ceebu mbay mi nañu fexe ba mu gën a doy waaye tamit bu amee na gën a yomb gën a yomb sax ceeb bi nga xamante ne moom la ñuy jéggaani ñu teewlu moomaat Cissé vice président bu askas ci micro Bintu Loum kontaan na trop bi ma ñëwee fii euh, surtout ñu invité ñu wax ne dana am marché yoo xam ne producteur bi mooy jaay consommateur bi ça veut dire que intermédiaire du ci am donc ñu ngi séntu prix bi nekk prix boo xam ne vraiment consomateur bi dina ci gis boppam mais le problème du problème mu qualité fu mu ne qualité bi mu ngi ci problème bi mooy que fokk consommateur bi bu xëyee mën a gis ci boutique am riz local bi bu ko defee mu mën ko jënd il faudrait que ñu def levier production bi comme ni ñëw ko appuyé wuti euh, commercialisation bi bu ko defee consomateur bi euh, gis nañ ne rendement production bi nga xam ne moo nekk ci vallée bi mais nekkul fenn neuf tonnes à l'écart nekkul fenn lu soxal jumtukaay yi jëm ci wàllu courant mën a bàyyeekoo ci naaj bi ci ndox mi eh, ci jant bi ak lu mu mën a doon loolee bëgg nañ koo gën a eh, suqali ci diwaanu eh, Sénégal centre bi nga xamante ne nag moom mooy yëngu ci lu ni mel am na ab laboratoire boo xamante ni tëral na ko tey jii laboratoire de biomasse la ñu ko duppee ngir gën a suqali li ñuy wax énergie renouvelable loole nag ñi ngi ko doon fésal tey ci suba ci ab ndaje moo xamante ni amaloon nañu ko dañ ci ànd ak Macky séeréer di ab centre bu bokk ci ministère de l' tey saytu mbiru énergie renouvelable doon inauguré ab laboratoire biomasse énergie ngir yobbalal askan wi ci wàllu woowu ci anam bu mu gënee. laboratoire bi liy njëriñam mooy fexe ba nit ñi am ay fourneau yu ñuy wax comme fourneau jàmbaar yi ngeen dégg ñu koy wax mais yoo xam ne encore dem ci yu gën a xarañ yooyu. laboratoire boobu li ko tax jóg mooy jàpp bu baax ci wér gu yaram askan wi ci koom ak yeneen. fexe ba nit ñi li Euh, joxe ci weccit li ñuy jaay pour jënd këriñ wala pour jënd matt wàññeeku xam nga loolu day nekk njariñ pour seen poste d'abord mais beneen bi aussi xam nga matt bi léeg day saxaar di génne ay saxaar yooyu xam nga day metti bët yooyu yëpp aussi dafa nekk loo xam ne laboratoire bi dina ko mën a saytu. bu fekkee wàññi nañu ku nekk par exemple si sa fournée au lieu nga utiliser benn kilo nga utiliser liibar donc naturellement li ñuy soxla ci matt wala këriñ day wàññeeku. donc loolu aussi day xeex donc li ñuy wax euh, déforestation bi donc euh, àll bi nga xam ne mu ngi gën di dellu ginnaaw parce que ni ngeen ko gisee nit ñi dañ yaakaar ne àll bi mu ngi foon su ñuy maam du fi jóg te ñëpp xam nañ ne léegi bu njëkk ñu ngi doon defar këriñ fii si Diamniadio mais léegi boo demul Tambacounda doo mën am këriñ. ñu toll si jamono bu petrole di yokk bës bu ne investir ci mbiru énergie renouvelable doon ab solution si réew bu mel ni Sénégal. lu toll ci téeméeri euh, milliards ak euh, juróom-ñett ci suñu koppar euh, moom la kanada dugal fii ci Sénégal loole nag ñi ngi ko fésal ci lëkkaloo gi nga xamante ne nii ñi ngi ko doon saytu diggante Sénégal ak kanada ñu jàpp nag ne loole daal mi ngi amoon ni ki démb programme bi nag mi ngi jëm ci wàllug suqali njàngum ndaw ñi lu jëm ci wàllug koom-koom waaye tamit lépp loo xamante ne nii jëm na ci dund gu doy démb nag la ko fésal ñu teewlu jëruñ ji nga dénk lépp lu jëm ci koom-koomu réew mi ak koppar yi ci micro Salimata Aw Seck biñ ko saytoo ci domaine yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom bi ci jiitu ci wàllu éducation la surtout xale yi Canada bokk na ci réew yi nga xam ni ràññeeku nañu lool ci dimbali Sénégal ci wàllu éducation fi mu nekk ni mën nañu wax suñu école yu bari téere yi fay jàngee notamment ci wàllu français ak mathématique ci école primaire yi li ci ëpp bu dul lépp it Canada moo koy moo koy jënd ci wàllu coopération bi mu doon ay téere yoo xam ne ñu koy jox xale yi saytu nañu coopération ba gis nañ ni coopération bi ci fànn boobu ah ñoom kontaan nañ ci ñun aussi kontaan nañ ci donte ñu ngi leen di wax it ci yenn fànn yi nañu accélérer yenn procédures yi ñoom aussi ñu ñuy ñaax ci xale yi notamment ci yenn zone yi nga xam ne dañu koy tuddee zone défavorisée que gouvernement bi aussi gën fa dugal loxoom. comme slam lii nag ab album la album bi nag fukki titre ak euh, juróom-ñetti ñoo ko tënk ay ndaw nag ñoo ko def boo ti jàpp kuréel seen lim toll ci ñaar fukk euh, ci ab taalif nag euh, moom la ñu tëral di ci jaax di wax ak askan wi mu nekk nag loo xamante ni ay message yu am solo la dañ ci ànd ak ay Pay Fall Euh, kon mu mel ni élément boobee yegg seegul euh, ñu daal di wax nag euh, ci taxawaay bi nga xamante ni groupe Futurs Médias am na ko ngir gunge li nga xamante ni rek moom mooy téeméer ak fanweer ak ñeenteelu édition bu wooteeb maam li maamulaay groupe Futurs Médias nag ne dina def kéemtalaay kàttanam ba ci wàllu couverture bi lépp mën a matale naka noon it lu jëm ci wàllu jumtukaay yu am solo daañu ko jagleel ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo yëngu foofee ci appel ba ngir ñu mën a jël seen matuwaay bu baax a baax waaye balaa boobu sax euh, jagleel nañ leen ab ndimbal ci wàllu nag ndox mu sell ngir nag ñu mën a bañ a am jafe-jafe ci wàllu ndox ñu teewlu euh, Mamadou Ibra Kane en tant que groupe Futur Média comme niñ koy faral di defe dinañu taxaw ci bés bi tous les supports muy tele bi rajo bi journal bi site bi dinañu mobiliser wu ndaxte événement bi moo tollu foofu weesu na fa sax loolu moo tax à chaque fois bu ñu defee benn ci benn édition édition bi ci topp dañuy def fukk parce que dañu jàpp ni effort yi waruñ ko maanaam dañ ko war a toujours di ko continuer di ko améliorer loolu mën nañu jël engagement ci seen kanam niñ ko couvrir woon daaw ren incha allah di gis ne qu'on a fait plus et mieux. Euh, lépp ci ndox la dooree parce que ceeb bi ci boppam ci ci ndox ci ndox la jógee euh, di leen wax rekk suñu contribution bu ndaw la. Euh, mais surtout defe na en tant que groupe de presse fi ñuy xaaree mooy couverture bi. Mamadou Ibra Kane directeur général bu groupe Futur Média doon àddu ci yéene gi nga xamante ni euh, groupe bi am na ko ci gunge appelu maam euh, Limaamu Laay ñu daal di addu ci xibaaru biti réew yi li ci gën a fees ak a Njaay lay doon. démb ci guddi la bu Boubèye mayga jëwriñ bi ñu dénk wàllu kaaraange gi ci réewu Mali daal di démissionné génne boppam ci gouvernement ba li waral mu jëfee lu ni mel nag mooy larme bu réewu Mali dafa nërmeelu ci kalamu groupe arme ya féete ca Kidal ñu jàpp ne moom ay fan ci ginnaaw fësal na ne lu ëpp juróom fukki nit daal di dañ faatu ca cong yooyu ñeent fukk ak juróom-ñett daal di ciy jëlee ay gaañu gaañu. Amérique daldi woo képp ku bàyyeekoo réewam daal di dem Libi mu dellu si waat muy dogal bu njëkk bi mu jël gannaaw bi réewu Libi daldi soppi jëw jëwriñam bu njëkk li muy tiit ak ragal jamono ji kay mooy ñu teg loxo wala ñu faat doomu réewam. lu bees ci roppalaan bi réeroon juróom-ñetti fan ci weeru mars atum 2014 bàyyeekoo woon Malaisie ay gëstukat yu féete ca Australie ñoom dàqu ne roppalaan bi essence am moo jeexoon mu fekk mu sori lool ci jaww ji li nag ñu ngi ko fësal gannaaw bi ñu defee ay gëstu yu yaa Maimouna Ndiaye ci xibaaru biti réew ba tey ca Tunisie ñeenti takk der ñoo daal di ñàkk seen bakkan niki démb ci ab song boo xamante ni amaloon nañ ko jëmale ko ci kaw këruk euh, jëwriñ dañ dénk lépp lu jëm euh, ci biir euh, réew ma fa naan Kasserine la loolee nag ma nga féete ca bëj saalumu réew ma waaye nag xamaguñu dëgg-dëgg kan moo nekkoon ci biir kër googee liñ ci jàpp rek mooy jëwriñ dañ dénk lépp lu jëm ci biir réew ma di Lofty benn Diedou moom ma ngay dund ca Tunis soxnaam nag ak ay doomam ñoom ñoo nekk fa ñu naan euh, Kaffrine euh, ca Nigéria lu toll ci euh, ñeenti téeméeri ay xale di ay lycéens yoo xamante ne nii Boko Haram dañu leen tegoon loxo ba gannaaw bi l'armée bi ne moom xam na fan la xale yooyee nekk loolee nag réewum Amérique àdduna ci ni ki démb moom nag nee na dafa daal di ànd ak ak tey ci xibaar boobu nga xamante ne tukkee na ci l'armée bu Nigéria ne ñoom xam nañu fi xale yi nekk loole nag ki ko fésal di ki yore kàddu département bu Amérique gannaaw bu mu doon tontu taskatu xibaar ya euh, ci ndax xam nañu fa xale yi nekk ñoom waa Amérique moom nag nee na loolu amu ci lu leer ndax amul benn xibaar boo xamante ne jóge na ci ay kilifaam yu nekk ci Amérique ngir indi ci lu ni mel waaye nag li mu xamle rek mooy façon xibaar yi nekk loo xamante ni dañ koy yëkkati ci biir euh, ay askan dafa nekk loo xamante ni daal foo ñu koy waxee dafa war a nekk barab boo xamante ne ni euh, barab bu sécurisé lay doon gannaaw bàkk bi nag dañuy daal di yegsi ci yaatalu tey jii. yaatal gi waxoon nañ ko ñi ngi ko jagleel këru liggéeykaay yi nga xamante ni tëj nañu am ci yoo xamante ni ñi ngi nekk ci ay jafe-jafe ñu fàttaliku Icotaf Sotiba Bata yi nag euh, entreprise mës nañu leen euh, dégg tey ji entreprise yooyu euh, nekk na entreprise yoo xamante ni daanaka kenn waxatul seen i wax fu ñu féete ak lan moo waral ñu nekk ci ay jafe-jafe tontu yi ak may Maymuna Njaay ñu fekk ko ci saalam mu toog góor gi sawar loolu wax ci kër liggéeykaay yi nga xam ni tey jii dañoo tëj seen buntu ndax doon na liggéey ca bataa di kër gi doon defar ay dàll ak lu ni mel li ko dalee atum 1963 jàpp atum 1988 ba muy tëj tey jii ay atam toll ci juróom-ñetti fukk ak ñeent. bata daana liggéey sandal daana liggéey euh, ay plastique. uniquement service 421 rek benn boobu benn service la woon daan na liggéey 1200 paires par jour mu am 422 ñu war a liggéey 1500 paires. bu sukkandikoo ci fi mu doon liggéeyee góor gi xamle ni kër liggéeykaay yi tëj tey jii lu ci bari nguur gi moo leen tek lu ñu àttanul. bataa ndax bu daan liggéeyal militaires yi di liggéeyal. di liggéeyal euh, di liggéeyal gendarme euh, yi di liggéeyal police yi ak liggéey yooyu da ko daan liggéeyal di ko jox gouvernement bi. lii di dal askan wi ñuy laaj ñu ubbi waat kër liggéeykaay yooyu wutal ndaw yi ay xëy. jeunes yu bëri dañ fa doon ñii dañ fa doon fanaan di liggéey ñii di yendu di liggéey par kaar lañ doon liggéey. xale yi mu ngi nii taxawaalu amuñu liggéey yëpp mu ngi dafa war a liggéey te jàppuñu fenn ñu ngi di taxawaalu. naam kër liggéeykaay yu ñu soppax ñi bari nañu wante ndaw yi ak mag ñi li ñu xamle mooy li yàqu moo ëpp boutique bi nga xam ni Sonadis la woon ca Tëngéej di ko firndeel leneen li koy firndeel mun a Ndiaye euh, di Sofa Sofravin Africamer Socas Kafal euh, Colgate Palmolive ñoom it fan la ñu féete euh, tontu li ci kanam lay doon waaye liñ ci jàpp rek mooy ñi nga xamante ne ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci lu ni mel rawatina ak syndicaliste yi ñoom dañu jàpp ni nguurug Sénégal war naa jàppale bu baax entreprise yi nga xamante ne dinañu nekk ci ay jafe waaye tamit li ñu jàpp ni moom moo waral entreprise yi tey nekk ci ay jafe-jafe jëm na nag ci wàllu concurrence bi ak it yorin bi Ibrahima Kamara Jaafara Ba bari na si ay kër liggéeykaay yu mujj tëj li ci tegu mooy ay borom njaboot yu bari yi si doon suturloo mujj tumranke lool. réew mi déjà booy liggéey di am solde sax daanaka li nga war a régler mënoo ko régler euh, sàkkantuma nag soo amatul solde pour certains vraiment mm, feebar sax mm, wàññeeku ñu bari sax dañu mujj décédé dans de conditions très difficiles. ñu ci bari bon vraiment chômage la ñu nekk surtout ñi nga xam ne ay xale lañu woon. bokk na ci euh, kër yi doon yëngu lu bari ci wàllu ñam ñoom it mujjee tëj. lu mel ni pêcherie frigorifique. lu mel ni stockage bi nekk Dagana mën nañu wax ne ay doomu réew parce que groupe bi ko moomoon groupe bu yàgg la muy groupe Santanac. beneen secteur itam bari lool ay usines yu tëj. mu jëm ci wàllu chimie di fàttali allumette Kafal. Kafal fii la nekkoon ci Sénégal doon entreprise bi gën a rëy ci Sénégal loolu la koy wax dafa gën a rëy ci Sénégal parce que ñi fay liggéey ña mu daa jël ni ñu toll mën mën daa nga ko mën a méngaleeg Africamer ba muy dox. parce que waa pikin Mbaaw environnement boobu yépp fa lañ doon xëy si di fa wut liggéey parce que euh, almet la woon te almet boobu dafa jaroon almetu kafaal le boxeur ainsi de suite malheureusement. nguur gi war a doon jafandukaay bu dëgër ngir fànqantal la mbir yi ni mel la sa wit entreprise yooyee. état dafa am dafa am obligation wutal sénégalais bu ne foo jàpp kon nag bu ko deful ba nit ñi am fuñ jàpp war na leen mën a jàppale ndax jàpp boobu sax bokk. ay kër liggéeykaay yu bare bare ne ci sukuraat bu métti tey jii bokk na ci entreprise bu ci mel ni ICS coppite xarale yu bees yi yorinu yamaneex yuy lëmbee kër liggéeykaay yooyee ñàkk boole liggéeykat yi ci yorinu kër yooyee bokk na ci li tax kër yooyee di suux Euh, kër yooyu di suux lu ko waral am na rapport boo xamante ni jëriñ ji dénk wàllu xëy mi euh, def na ko ci atum 2012 loolee wane na ni lu toll ci ñaari téeméer ak fanweer ak ñett ci ay këru liggéeykaay tëj nañu euh, lu toll nag ci junni ak juróom-ñeent ak ñaar ci la ñu ñàkkee am xëy ki nga xamante ni xam-xamam màcc na ci wàllu koom moom nag wax na ci wàllu petite ak moyenne entreprise yi di kër yi nga xamante ni dañoo tuuti mbaa boog kër yi nga xamante ni ay yamamaay lañu nee na nag loolee li ko waral rek mooy dañuy faral Euh, di yanu loo xamante ne attanuñu ko loolee nag ngir indi ci saafara moom xalaat na moom may Maysa Babou ne faaw ñu wàññi fiscalité bi ñu ànd ci ak Aminata Mbaye soow ñi bëgg ubbi entreprise privée ci Sénégal dañuy faral di jànkonteel ak ci jafe-jafe yu bëree looloo faral ñuy nemmeeku entreprise yu bëree di daal di tëj. Euh, ci courant ci ndox ci ci essence ci location ci même fay salaire en fait dañuy dem ba xam ne dafa cher fiscalité bi maanaam li état bi di teg entreprise yi tamit ni dafa xawoon a jéggi dayoo ndax. doon wax kàcci kese la ñoom ñaar fukki étudiant ak ñaar ye woon démb ci tribunal réew mi ko quotidien nañu Karim Wade moo leen dalal ci rëbas te moo leen wutalub avocat direct fa mel ne ku naan ñu moom Karim Wade bu mënee wuti avocat rek dina wóor ne am na lu ko doy sëkk soxla fanweeri fan ak benn ci weeru sulet journal bi nañu ca la ñu koy atte observateur ne ko ci lu amul benn werante Karim Wade dana janook attekat bi jëm ci teranga julewul dañu koy toppee mu leeral ko fanweeri fan ak benn ci weeru sulet te atte boobee dee su ko xumtoo askan wi dana ñu ci mën a jote ñoo ngi koy defee ci tribunalum ndakaar kañ la réew mi quotidien ci observateur ak direct info Karim Wade dana janook attekat yi fanweeri fan ak benn ci weeru sulet Ousmane Tanor Dieng ak Aïssata Tall Sall kañ la ñuy jàkkaarloo Sud Quotidien ñu soreetul waaye Aïssata Tall Sall mer na ba fut Aïssata Tall Sall béggul ci doxalin Ousmane Tanor Dieng ni ñuy waajale seen congrès bi la ci soxna sa gis moo di dafa ay njaaju ci am observateur nañu Aïssata Tall Sall fetal na Tanor ba xolom sedd ci Walf Fadjri rek ci populaire soxna si di meeru Podor am na lu fa jàdd yoon ma jël yoon wi jëm Touba ànd ak laas yéenekaay mi bokk ci yéenekaay yi màggali woon ci màggalu Kazu Rajab ga journal bi xëy ñu ci xëtamu njëkk ci kàddu yu bawoo ci sëriñ Abdou Fatah Mbacke moom sëriñ Fallou Mbacke sëriñ bi di sàkku ci Macky Sall mu xoolaat ñi ko wër ndax ne na ñi ko wër bari na ci ñu bon ñu fekkat ko ci siiwal yéenekaay mu ne ñu fa entourage su njiitu mi bari na ci ñoo xam ne ñoo gën a bon jàngoroy peste li dal Wally Seck moo gën a bon jàngoroy peste xabaar baa ngi ci direct info journal bi dañu Wally Seck dañu ko fëkk bi kenn xamul fan la féete jamono ji la ko ko yóbbee journal bi nañu moo di ñu mu waroon a tëggal soirée bu jógee ci Zénith Wally Seck jógee Zénith ne dafa daggale munu ci teg beneen soirée bëgg sëgg soirée boobee mu jàll ca la gars yi solee seeni kagul fekk ko fa mu toog jël ko yóbbu direct info nañu ba fi mu nekk nee kenn xamul fan la Wally Seck féete ñu di ko jaajëfal bu baax Mouhamed Ndiaye yéen ñi fete woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti cant ak gërëm ñeel na leen euh, rédaction bi dina fi teewaat 19h30 ak 20h ak yeneen i xibaar jaa ngi jëf ci teewlu bi.